bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin nu ngi sant yàlla julli si yonent bi di julli si Maulana Cheikh Ibrahim Niass ah, di wax ne jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass ah, di jël ndigal si suñu ustaas ah pour joxe kàddu yi ñu fiy rek incha allahu rabbi. Mm. Ah, ay waaw ñu ngi sant yàlla beneen yoon eh, di wax ne alhamdulilah fekkoon nañ ko daaw fekkee ko ren yàlla nañ koy fekkee ay déwén si barke alquran barke salatul fatiha eh, sëñ bi wax si bàyyi du yomb waaye nag xëy na dañ koy tënk rek eh, Baay Ñas li xam si moom mooy bëgg nañ ko ba fu bëgg ba tax looloo tax ñu dajaloo raj rajloo def si ay gaal lu mot téeméeri gaal ak lu teg jóge si île di ñëw si gàmmo Médina Baye Niass bii eh, soo gisee gaal yi fi ñëw ak mbooloo mi fi wàcc nga xam ne lépp bëggu Baye Niass moo ko waral bëgg bi nit ñi bëggu Baye Niass kenn mënu koo xayma kenn mënu koo wax da ngay si seen activité rek ak seen doxalin ah ngeen xam ne ñii bëgg nañ Baye waaye itam jeex nañ si Baye ñun waa Gandoul ñëpp noonu la ñuy dundee si Baye ba si tey bii lu ko dare bi weer bi terewee ba tey soo ñu gisee rek amatuñu benn yitte bu dul eh, Maulana se Ibrahim Niass ba bés yi tey mi nga xam ne ci la fi ci lañ fi teew ngir ñëw. magal juddu yonente gi sallallahu alayhi wa sallam e, lépp si buntu Bañes kon ñu ngi sant yàlla di santaat e, waaw gaal yi bàyyi ko Gandoul e, dañ koy xayma rek waaw mot na cent gaal gaal te gaal bu ne day def ay yen yenn gaal yi ci gën a tuuti ay téeméeri nit lay def yeneen gaal yu def ñaari téeméeri nit looloo waral ren gii nga gis nii eh, ñu am sécurité bu rëy gaal yëpp sol ay gilet de sauvetage pour sécurité gaal yi loolu dañ siy sant yàlla bu baax di koy gërëmee bàññees waaw eh, ñu si gën a sori ñu ngi départ démb si quatre heures si bëccëg ñëw rassemblé wu Foundiougne ba ñëpp teew ñu def si convoi bi eh, Foundiougne la ñuy xaarante su gaal yëpp teewee foofu la ñu defee convoi bi jubal Kaolack kon loolu dañ siy sant yàlla bi nga xamee ne eh, départ nañ si jàmm yegg si si jàmm te amuñu si benn tolof tolof eh, ngir jëmm bàññeef kon ñu ngi sant yàlla bu baax tur bi Abdou Dieng la Abdou Dieng Ngadior Eh, kii sama wet mooy suñu ustaas mooy Cheikh Mouhamed Ñing mooy suñu ustaas ah Baye mos na ñëw Gandoul Baye ñëw na ba benn dëkk bi ñuy wax Jirnda def si tourna ba Jirnda waaw Baye Niass mi ñëw na foofu ngir nemmeeku taalibe dëkk yooyu nga gis yëpp nag ñoo fi ñëw tey ngir juddu eh, yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ngir eh, jëm Cheikh Ibrahima macha allah ñu ngi asalaamaaleykum. je ne serai jamais fatigué ou bien euh, ne pas revenir sur cette histoire là vous savez quand c'était compliqué difficile de se déplacer c'est Bagnès qui s'est déplacé qui a pris les pirogues et à l'époque c'est des pirogues voilées à pagaie il a traversé la mer il a traversé les difficultés pour aller les trouver dans leur propre île et c'est voilà l'histoire qui retient que ces, ces disciples de Bagnès là qui sont à 99 pour cent des îles. fàttali bi combien de kilomètres. Euh, estimé à plusieurs kilomètres. en tout cas le temps de voyage c'est plus de dix heures de voyage mais estimé en kilomètres pour le moment on l'a pas encore fait mais c'est question qui vient l'année prochaine inchallah on vous dira le nombre de kilomètres. inga a genar we i teeru den i mbi'a ke warna in teen tamit mi Dakar xatum mais il ke genum na auto ke ɓeeridum koy mais garam xetoxid we andoona den refu in saate es a ngara ɓeerid suk ke a mbudoox ne i nqetooxa den fa jam i taalibe Baay ndef ga'anga yee i teew meeke ino fop taalibe Baay ndef i waaw yoon bi metti na mais jaral nañu ko aɗoma trop mais jaranana in parce que i njegee dara ka refeer na baay i njege tus ka refeer na Kaolack waaw parce que baay ten cooxu in ke andoona yee ten doyuna in ke i nga'na daal manam ke doyna in daal no ten i kaaga taxu in na ñaama ten i nga'a in na yera ten i i njege dara yitam oxa refeer na o ten ten soom i yakaaru ñu barke rek ci waay di ko jox en temps réel ci li nga xam ne rek mooy arrivée des pirogues ici au port de Kaolack lépp rek ngir waajal li nga xam ne mooy bés bu sell bi bés bu tedd bi nga xam ni ñëpp ñu ngi koy xaar nit yi dañ koy xaar jinne yi dañ koy xaar euh, mala yi dañ koy xaar malaayka yi dañ koy xaar lépp lu yàlla bind day sàbbal bésu Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni dañ ko selebre ni ko suba dimanche mu nekk loo xam ne ji day tombé fukki fan ak juróom incha allah euh, adduna bi yëpp di ko célébrer waaye rawatina fii nga xam ni mooy dëkk bu tedd bii dëkk bu sell bi di euh, dëkku maam Cheikh al Maulana Ibrahima Niass bi Medina Baye. kon yaakaar naa ni mbokk yi li nga xam ni mooy arrivée des pirogues gis ngeen ko gis ngeen image yi gis ngeen tamit euh, taalibe yi gis ngeen réaction yi ñoom ñëpp. ñu ngi euh, am xol bu tooy am mbégte waaye tamit am yëg-yëg goo xamante ni c'est spirituel foo ko takk weesu na ko ngir rek daal di mën a euh, jox li nga xamante ni ji mooy euh, seen maanaam gëdd ak seen ngëm-ngëm li nga xam ni moo jëm ci bésu euh, Seydou wu jot Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di bésu gàmmu nga xam ni yaakaar naa nekk na bés bu am solo ci wàllu diine waaye nekk na bés bu am solo ci wàllu tamit tarix euh, tarixa tijaniya ba tax na rek euh, boo nee tarixa tijaniya sa xel dina dem Tiwaawan sa xel dina dem fi nga xam ni mooy Ñaseen sa xel dina dem fi nga xamante ni ji mooy Canaba sa xel dina dem tamit fi nga xam ni mooy famille omarienne waaye boo al almouridiya sa xel dina dem ci maam Serigne Touba euh, Khadimu Rasoul ak maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babu Mouridina boo nee euh, ñi nga xam ne ñooy communauté Layène sa xel dina dem ci maam euh, ki nga xam ne mooy limaamul Mahdi borom aajo boo daaye laahi kon Sénégal ñun amuñu dara loo xam ne ji war nañ ko tiit. wala ñu ragal ko ci li nga xam ni moo jëm ci euh, wàllu barke wala wàllu loo xamante ni ji dañuy aar wala sax mu ñuy euh, jox ay xéewal ndax ndax suñu maam yooyu nga xam ni euh, kenn lañu ci àdduna bi nekk nañu ay nit yoo xamante ni liggéeyal nañ lislaam waaye liggéeyal nañ seen borom waaye tegoon nañ seen tànk fa nga xam ni fa la ko Seydi Wujjoot di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tegoon ba tax na tey fépp foo dem ci këri diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñi ngi fa yéenee ànd célébrer li nga xam ni mooy euh, juddik Seydou wu jot Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ci noonu rek ñu ñaanal mbokk yi nga xam ne ñoom ñëpp euh, ñu ngi ñuy seetaan à travers nos télévisions ñu continuer di ñu suivre ci li nga xam ne rek moo jëm ci célébration mawlud bi dara du leen ci ump rawatina fii nga xam ni mooy diwaanu Medina Baye euh, nga xam ni nekk na. barab boo xamante ni ji ñu bari dinañ ko teewe ñi nga jógee ba Ghana ñi jógee nigeria ñi jógee London ñi jógee Amérique ah ñi jóge ci Gambia ñi jóge partout dans le monde ngir euh, teewe li nga xam ni rek mooy bés bi nga xam ni mooy bésu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum euh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen dalal jàmm ci poor bi man maa ngi tudd Madiop Samb commandant Madiop Samb donc euh, je suis le chef de la circonscription maritime centre de l'agence nationale des affaires maritimes donc on accompagne euh, les pèlerins on les accueille on veille à la sécurité à la sûreté donc euh, vraiment accueil bi macha allah pèlerins yi ñëw nañ ci jàmm. ñu ngi leen di protéger di bàyyi xel euh, bépp incident boo xamante ni nii xaw nañ koo xelmati donc di sóoraale euh, loo xamante ni nii euh, war na fi man a si ñu bàyyi ko xel bu baax a baax parce que nit ñi ñoom pèlerin duñ ko bàyyi xel donc moo tax boo xoolee port bi di nga fi gis la chambre de commerce ñoom ñoo fi jiitu dispositif bi ngay gis ni yëpp chambre de commerce ñoo ko fi def chambre de commerce donc di jaajëfal Serigne Mboup ak collaborateur am yëpp parce que ginnaaw moom moo tax lii am parce que boo xoolee pèlerins yi ñu ngi leen di jox ndekki ñu ngi leen di jox ndox ñu ngi leen di jox naan tante yi ñu leen di tertu ci kër gu sedd donc euh, loolu moom vraiment mbir la moo xamante ni nii dafa am solo li ci des mooy les forces de défense de sécurité ñëpp teew nañ donc gis nañ fi la gendarmerie gis nañ fi même l'armée luñ daawul gis donc euh, macha allah donc lii ñuy wax sécurité fi mu nekk nii ak sûreté macha allah parce que boo xoolee port dafa am lu ñu tuddee un décret de 2015 boo xam ni Sénégal moo ko xaatim ba pare ratifier la convention internationale sur la sûreté maritime. donc l' autorité nationale de la sûreté maritime des installations portières c' le directeur général des affaires maritimes donc looloo waral tey ñu teew fii aussi di def suñu mission conformément. aux circonscriptions maritime donc ba tax na lépp luy kaaraange ak wóoraange fii moom ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax di assister aussi waale di bàyyi waale xel suñ mbokk journalistes si parce que nag ñoom kenn demul ñu des parce que ginnaaw yàlla lii moom ñoo mën a tax ñëpp man cee gis gis sécurité bi fi am ak kaaraange gi ak lépp lu fi am eh, dans le monde avec les véhicules, avec les bateaux, avec les avions, avec les trains, avec les chameaux, avec les charrettes et les ânes. C'est comme ça qu'il a fait avec les îles du Saloum. Dans la période la plus difficile de traverser des îles, Cheikh Ibrahim Niass a emprunté la pirogue sans moteur, avec des pagaies et des voiles pour aller les trouver chez eux, dans des conditions extrêmement difficiles, avec peu pour de spiritualité dans les, dans les, dans les personnes. Est-ce Le nombre de pirogues est estimé à 46 pirogues. Le nombre de pèlerins est estimé à 2900 pèlerins. Et combien, et combien de communes Les communes sont au nombre de trois dans les îles qui composent les îles du Gandoul. Et même, on peut dire, les, sont au nombre de quatre parce qu'une partie de la commune de Founioun euh, traverse à, à, à, euh, voyage avec le, le convoi. C'est la partie Ndangan de Founioui. Donc, en dehors des quatre communes insulaires, il y a aussi la commune de Founioui qui traverse avec les, les îles du Gandoul. <coughs> yi ñu ngi ko ñu ngi ko xayma ci ñeent fukki gaal ak juróom benn ñi nga xamante ne ñoo ñëw tey jógee île Gandoul jaar ci gaal yi ñu ngi koy xayma ci ñaari junne yi taalibe ak juróom-ñeenti téeméeri taalibe loolu mooy li nga xamante ne moo teer fii ci port bi bu ngeen ñu mayoon nag je vais remercier le le président de la chambre de commerce remercier l'État du Sénégal a toujours mis à la disposition de ces pèlerins-là des gilets de sauvetage je reviendrai en wolof il a à la disposition de ces pèlerins des gilets de sauvetage mais cette année il y a une particulière du préfet du département de Foundiougne à qui je rends un vibrant hommage Après avoir reçu les, le lot de 2000 gilets, il a convoqué tous les acteurs à la préfecture pour qu'on en discute. Mais mention spéciale au maire de Djirndam, M. Badra Diom. Après le dispatching des gilets, il a affrété une pirogue qui a, mis, qui transporté les gilets jusque dans les, dans les îles. Dans, pour chaque pirogue, pour chaque capitaine, on lui a remis ses gilets chez lui. Et cette année, Les pèlerins n'ont pas porté les gilets à partir de Foundiougne, mais ils les ont portés à partir de leur lieu d'embarquement. moo tax ma ne ngeen may ma ma gërëm waa chambre de commerce président chambre de commerce Serigne Mboup ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax yàgg na di ñu defal teraanga fii waaye état du Sénégal dinañ leen gërëm at bu jot dinañu jox ay jile mais ren jox nañu gilet mais dafa am touche particulière bu ci préfet def ñu koy delloo njukkal bu baax moom préfet bu Foundiougne ndax biñ jotee ñaari junney gilet yi dafa woote préfecture ñi sëq mbir mi ñun ñëpp ñu teew waxtaanee gilet yi naka lañ koy wasaaree. waaye biñ ko wasaaree monsieur le maire de Djirnda xam nga gilet yi dañ leen ko xaar Foundiougne gaal bu yegg si ñu jox la gilet à partir de ñuñ ñu ne leen diggante Dionewar ba Foundiougne juróom benni juróom ñetti waxtu de voyage la wala juróom ñaari waxtu lu ne xëñ na ci monsieur le maire de Djirnda mention spéciale moo jël gaal transporté gilet yi yóbbu leen ba ci dëkk yi gaal bu nekk capitaine bu nekk ñu jox la say gilet nga solee gilet yi ci lieu de embarquement bi ba fii ci Kaolack ñu ngi gërëm ñooñu ñëpp di leen sant.